dal leen ak jàmm mbokk internet yi wal miraas ma ca kër sëriñ Cheikh Béthio Thioune ma woon jur na coow ba ñu mujj teg loxo doomam ju góor ji di sëriñ Saliou Thioune coowal ndono moo xam ci wàllu dara la wala itam ci wàllu alal daanaka jamono ji mooy lëmbe waa kër sëriñ Cheikh Béthio Thioune jamono ji alalu njiital cantaakun ya woon di sëriñ Cheikh Béthio Thioune ak miraas ma aju ca googule alal nar naa jur coow lu rëy ci réew mi gannaaw xiiroo ak ngaayoo ga xewoon ca buntu këram moom soxnaab sëriñ seex Béthio Thioune ba woon Mbour soxna Bator mujj naa jébbal ab plainte waa gendarmerie bu Mbour teg ko ci taabalub ki nga xamante ne moom mooy Issa Seck boobule plainte bu euh, ñeenteelu soxna Serigne seex Béthio Thioune ba woon lam ca jublu mooy yóbbu ca yoon doomam ju góor ji di Serigne Saliou Thioune ngir violation de domicile maanaam dugg ca kër jàmbur ci lu neexul borom ak itam coup et blessure porté sur son vigile maanaam dóor yi nga xamante ne jot na ko dóor gardien ba moom mi ñu jox baaraamu tuuma mbir mi nag bi ko waa gendarmerie convoqué ne la ko fa dugal génnewu ko fa bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi tukkee ci wàllaat ndax téye nañ ko fa lu yàgg ba mu guddi lool te la ca mujj mooy Seydina Saliou Thioune dañu ko mujj def garde à vue ba fa la mujj fanaan li am ba des nag mooy plainte ab soxna bëtër bi mel na ni ab car dong la ci garab gi ndax am na lu ko jiitu te fa mu nar mujjee narul neex li ko waral mooy doomu ba njiital cantaakun ya woon di Serigne Cheikh Béthio Thioune jamono ji dañoo taxaw temb ngir teg bàyyi bàyyi woon na ko fi ndax nee ñu duñ ci dellu ginnaaw te seen jubluwaay mooy dajale lu seen bàyyi amoon yépp ngir mën ko miraas ci ni ko lislaam santaane loolu nag ku am xel xam ne nag du yomb ndaxte ca ndorteel la ba léegi nii ñoom doomu sëriñ seex Béthio Thioune yi ma woon dañu ñu ci di joxoña baaraamu tuuma ñi nga xamante ne ñoo nekkoon soxnapp sëriñ bi di wax ne dañoo sàcc alalu cheikh bi ndax dañu jàpp ne lu bari ci alalu cheikh bi ñoom soxna yooyu lee ñoo ci teg loxo ëppi loxo ba jur jéyee ci réew mi daan leen ko toppal ngir indil leen ci xibaar jërë ngeen jëf